wa anni ak naka man laa axiibu doo mën a fàddu xan nadari rabbi walis xooluk sama boroom fa ana man mustaxyin aji rusla minhu ci moom mas nañoo laaj kenn ku am xam-xam te rafetug jaamu yàlla ne ko waaw sa jaamu yàlla gu rafet gii noo ko amee mu ne dama ko teg ci kaw yent bu jëkk bi mooy dama xam ne yàlla bindal na ma wërsëg woo xam ne moom lu yàgg-yàgg du ma raw kon nag waruma geesu wërsëg bay sàggane jaamu yàlla ñaareel bi mooy dama wóor ne yàlla sàkkal na ma àpp boo xam ne su ma ca àggee falaa yam may jéem a jëkkanteeg àpp boobu nag bala ma ca àgg ñetteel bi mooy xam naa ne yàlla dama gàll ay farata yoo xam ne man rekk maa ci mën a taxawal saa bopp bu ñëpp defee seen wàll te defuma it du tax seenu def jariñ ma dara moo tax ma taxaw temm ci li yàlla farataal ci man ma di ko jéema a matale ñeenteel bi nag mooy dama wóor ne yàlla mi ngi ne jàkk ci man di gis ak a xam sama biir ak sama bitti moo tax nag ma di ko rus di moytu lépp loo xam ne taamu ko waxan jaabir ibni abdillah qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tajlisu bu leen toog illaa inda aalimin ndare fa aji xam yadduxuukum kook dana leen woo min xamsin bàyyikoo ci juróom ilaa xamsin jëm ci juróom mina shakki muy tukkee ci sikki sàkk ilal yaqiini jëm ci ak wóolu wa min arriyaayi ak tukkee ci ngistal ilal ixlaasi jëm ci sellal wa min arraxbati ak tukkee ci xemmim àdduna ilal zuhdi jëm ci dëddu wa min kibri ak bàyyikoo ci rëy ilal tawaaduhi jëm ci toroxlu wa min xadaawati ak tukkee ci noonoo ilal nasihati jëm ci laabiir jaabir ne yonante bi daa waxan ne day leen toog fi boroom xam-xam boo xam ne da leen di génne ci juróom yóbbu leen ci juróom ba jëkk mooy da leen di génne ci sikki sàkka maanaam ñàkk wóolu yàlla ak diineem ji da leen cee génne yóbbu leen ci xol bu dal bu am yaqiin ci yàlla ak diineem ji ñaareel ba mooy da leen di génne ci ngistal maanaam def te yàlla taxut yóbbu leen ci sellal di def te yàlla rekk tax ñetteel ba mooy da leen di génn ci bëgg àddina ngir àddunay kese yóbbu leen ci wan gannaaw àdduna mbaa su ngeen ko dee bëgg it bëgg ko ngir defare ko àllaaxira ñeenteel ba mooy da leen di génn ci rëy yóbbu leen ci ak woyaflu nangoo toroxlu juróomeel ba nag mooy da leen génn ci noonoonteeg benn jullit jekk di bañ kenn te yàlla taxut da leen cee génne yóbbu leen ci bëgg jullit ñëpp di laabire jullit ñëpp wa qaala alayhi omar ixtanim màngal maanaam profiteel xamsan juróom xabla xamsin ci njëkk juróom shababaka moo di sag waxambaane maanaam sag ndaw xabla haramika ci njëkk sag màggat wa sixataka ak sag wér xabla saqamika ci njëkk sag ràgg mooy tawat ka ak sam koom xabla faqrika ci njëkk sag ñàkk wa baraaxaka ak sag fiix xabla suxlika ci njëkk sa soxla wa xayaataka ak sag dund xab xabla mawtika ci njëkk sag dee yonente bi waxoon na Abdullah ibn Omar ne ko boo tolloo ci juróom na nga gaaw sa digganteeg sa boroom def la amal njariñ lu tax mu gërëm la bala caa juróoma topp bi ci jëkk mooy boo tolloo ndaw na nga farlu bu baax te xam ne boo fi yàggee danga màggat te boo màggatee da nga rëcc lool loo defutoon ca ndaw ga boo tolloo ci wér na nga farlu bu baax def lépp loo mën ndax kat mën naa am nga dem ba wéradi te ba wéradi da nga xam ne la nga mënoon ca wér ga raw na la doo ko mënati ci wéradi gi ba tey boo tolloo ci am jéema la farlu ci lu baax te xam ne ñàkk mën na caa ndax benn nga ñàkk la nga amoon mbaa nga faatu bàyyi fi te lu ci mën doon rek da raw leen lu ba ca boo tolloo ci am jot del góorlu bu baax bala ngaa tab ja soxla yi di gàllankoor ndax boo xasee bari soxla la nga mënoon ca féex ga ak am jot ga doo ko mënatee bi ci mujj nag mooy li fee yaa ngi dund rek del jéem a kër këril yàlla te xam ne dee ngi dikk te dee nag moom bu xasee dikk moom mooy yemukaay ba wa baadul xukamaa yi leen ci xam xikam ne xamsatun juróom ñi laa yustaxyaa deful rus min xidmatihim ci yeenuk liggéeyal assultaanu buur wal aalimu ak aji wal waalidu ak waajur wal dayfu ak gan wal faras aku fas am na ku wax ne juróom ñi daal matuñoo rusa sonnal sonnal leen mëttalus ki ci jëkk mooy buuru diine bu maandu ñaareel ba boroom xam-xam buy jëfe xam-xam ba di ca teete jaami yàlla yi ñetteel ba sa waajur ñeenteel ba gan juróomeel ba fas fas moom ci yooyu jamono dañ ko daan yittewoo lool ndax dañ daa dem ci toolu xare ba jox seen bakkan yàlla te booba nag fas moom mënu ci woon a ñàkk moo ëppoon ci lañu daan jëfandikoo ca xeeti jihaad yooyee lu bokkut ak loolu nag fas moom yàllaa ko teral muy lu baax a baax ba suñ jamono jun tollu sax buñ xoolaatee gis rekk fas ni ko yàlla fonke ak fa ko teg waqiila waxees na ne laa yam baxi du yell lin xaaqili aji xel sukk naa baladin dëkke ab dëkk lay sa fiihi bopp den mi nekk ci moom xamsatun juróom sultaanun buur qaahirun ku di aji not wa qaadin ak di aji maandu wa tabibun akub docteur maahirun bu di aji ñaw maanaam docteur bu xam faj wa suuqun akub marché qaaimatun bu di aji jar wa nahrun ak deex jaarin gu di aji daw mu ne nee nañu béréb boo xam ne juróom yi amu fa bul fa dëkk mukk mukk boo yeewoo daal booy dëkk dëkk bu amu juróom yi sori ko mooy faw na am kilifa goo xam ne mooy saytu mbir ya di ko awale ci aw yoon béréb bu amul kilifa rek bul fa dëkk ñaareel ba na amee àttekat bu maanu boo xam ne doomi aadama yi mënuñoo ñàkk amlante lu aajowoo àtte faaw kon na béréb ba am àttekat bu maandu boo xam ne bu nit ñëwee mu teg leen ci yoon ñetteel bi mooy foofa na am docteur bu xam faj nga xam ne boo wéradee mu mën laa faj ñeenteel bi mooy foofa na am marché boo xam ne loo soxla mën a waaxu jënd ko fa juróomeel nag daa mel ni moo ci gën a far mënta ñàkk mooy na am ndox béréb boo xam amul ndox rek sori ko booy dëkk daal dëkkal fu am ndox xam ne boo bëggee ndox rek daal di waaxu sàkk wa qaala aliyun karamallahu wajha xamsatun juróom fii xamsatin nekk na ci juróom alxis su tedd nga fit taaxati mi ngi nekk ci topp yàlla wa zullu toroxte fil maasiyati mi ngi nekk ci mooy wal xikmatu xikma xam-xam bu am njëriñ bu ànd ak leer fil botooni nekk na ci biir ya alxaaliyati aji wéet alxaaliyati yi aji xiif mooy yi di rek wal haybatu wegu ga fi qiyaamil leyli nekk na ci taxaw guddi muy julli guddi wal xinaa koom xanaaxati nekk na ci doylu al imaamu xaal yu nee na woon juróom yi génnul juróom yi mooy tedd nga ñi ngi koy ci topp yàlla toroxte it ci mooy yàlla lay dale nit xam-xam bu am njëriñ ànd ak leer it ku nangoo xiif la ko yàlla yi defal ak wegu kuy julli guddi bàyyi moom di jaamu yàlla la yàllay may xëybatu ak wegu ku ko gis weg ko ndax lu yàlla def ca moom bi ci mujj mooy koo mudul jeex mooy doylu rekk ku amul doylu daal moom am nga koo mudul jeex waaye ku amutu doylu moom loo am lu mu bari bari it day mel ne yaa gën ñàkk ñëpp wa qaala abu yasidin alaamatul mustayxidi màndargam aji yewu xamsatun juróom la ida zakara ndeem tudd na mbaa ndeem fàttaliku na nafsaxoo boppam iftaqara mu aajowoo wa ida zakara ndeem fàttaliku na dambaxoo bakkaaram istaghfara mu jéggulu wa ida zakara ndem tudd na adduniya adduna i'tabara mu xalam waaru wa ida zakara ndem fàttaliku na al axirata al axira istabshara mu békk wa ida zakara ndem fàttaliku na al mawta dee mu damu abu yosit nee woon ku yeewu ba ne jaar ñu ngi koy xamee juróom yi su seetluwaatee boppam daldi xam namu mu ñàkki solo delluwaat ci yàlla xam ni moom ab jaam la bu xamut mënut sañut ab sangam nag moo boole xam man sañ ñaareel bi mooy su fàttaliku bakkaaram daldi di gaaw jégglu ñetteel bi mooy su xelam demee ci àdduna mu dolli ko waaru ci àdduna ak ni muy jëlarbikoo ak ni muy demee rekk di jeex di wéy su xelam demee ci àllaaxira mu bég te xam ne ndegam yàlla may na ko gëm te kër googee du jeex lépp lu ko rawoon fii rek bu demee dana ko dabu foofa ndegam mi ngi aw ci yoonu yàlla bañ koo wàcc ci mujj nag mooy bu fàttalikoo dee daldi di damu day mel nekkoon kon fu toll day waajal dee ba nga xamee ne saa yu fàttalikoo dee it rafet njort ci ne moom waajal na ko ba lañ ciy ragal rafet njort ne yàlla dana ko ca musal lu dàq lim nekkoon ci àdduna rekk lay fekke وقال ابن حباس رضي الله عنهما خير العباد من جي جامنة الذين موي نيغا خامني فيهم نك نا سي نيوم خمس قسال جرومي جيكو ida ahsanu ndeem rafetal nañu istabsharu ndeem ñaawal nañu istaghfaru ñu sàkku njéggal wa isa uutu ndeem joxeef na leen chakaru ñu sant wa isa munion ndem xàññeef na leen sabaru ñu muñ wa isa uxdibu ndem merloof na leen xafaroo ñu jéggale ibnu xabbaas abdullahi la tudd mook xabbaas ñoom ñëpp yal na leen yàlla dolli ngërëm nee woon ñi gën ci jaami yàlla yi mooy ñi boole juróomi mbir yi ba ci jëkk mooy bu ñu defee lu baax bëgg ca bu ñaawale itam xam ne ñaawal nañu mooy bu ñu defee lu ñaaw xam ne def nañ lu ñaaw daal di gaaw jéggulu buñ leen joxee ñu sant buñ leen xañee ñu muñ suñu leen merloo ñu bañ a fayantoo bañ a topp mer ma xanaa jéggale ngir yàlla wa qaala muhammadu bnu alharawiyu ihfazu wattu leen xan yi jëne ci man xamsan juróom man kadaba ku fen dëhëba dem jamaaluhu ab taaram wa man saa aku ñaaw xuluquhu jikkoom kasura kon bari xamuhu ñagg-ñaggi xolam wa man tazaharat koo xam ne tegaloo na xale yi ci kawam àndi amu xéewal ya fal yu sir nay baril mina shukuri ci sant wa man kasura ku bari xumuumuhu ay njàqareem fal yuksir nay baril min laa xawla wala quwata illa billaahil xaliyil azim wa man alamma ku wàcc bi ci moom alfaqaru ñàkk fal yuksir nay baril minal istixfaari ci sàkku njëggal ku ñu wax muhammadu bnu abdullah alxarawi neen woon jàpp leen juróom yi ma wax leen ko ngeen jariñoo ko bi ci jëkk mooy fen dee leen ko moytu ndax nit kër luñ ko xam-xam ci rafetu tur ak daraja bi xësee neme ko ci mu wax lu amul rekk day mel ne mësuñu koo xam ci dara lu baax ñaareel ba mooy di moytu ñaaw jikko ndax ku ñaaw jikko faw mu bari ñaggi-ñaggi xol ak dundum du neex ñetteel ba mooy ku yàlla sotti ay xéewal nay bari la sant lool lool ndax yàlla boo santee mu dolli la waaye boo santut mu nangu lam la joxoon te jotaat ci boo wutul dana jafe ba ja topp mooy ku yàlla baril ay njàqare ay ñagg-ñaggi xol nay bari la wax la xawla wala quwata illa billahil aliyil azim ba ci topp mooy ku yàlla teg ak ñàkk mu néew wërsëgu àdduna nay bari la jéggulu ndax baril jéggulu yàlla day tax yàlla jéggal la ba noppi ubbi la buntu wërsëg wa qaala abu layth as-samarqandiyu yasilu dana àgg ilal xaasidi jëm ci aji añaan ja xam su xuqubaatin juróomi mbugal xammun aw naqar laa yanqatihu wow du dog wa musibatun ak musiba laa yuy jëru moom deefu ko yool aleha ca moom wa suxtu rabbi ak melum buur bi wa fawaatul ajri ak faatuk yool ba waxal ku baabi tawfiixi ak tëj buntu tawfiiq abu lays as samarqandi yu nee na woon añaan baaxut maanaam ñàkk yéene nit la ko yàlla defal baaxut ku ko def yàlla teg ko juróomi mbugal bi ci njëkk mooy dana am naqar woo xam ne du am fu muy yem ndax loolee ko naqar yi ci la yàlla defal kookee naqar wa du tax yàlla dindi lam ko defaloon su ko defee la ci topp mooy mel ne ni kon musiba dal na ko moo xam ne du ci am tuyaaba ndax naqar woowu mu naqarlu mel ne musiba musiba ngoog moo xam ne kon du ci am tuyaaba boole ci nag merum yàlla muy ñetteel ba yàlla da koy mere ndax lam defal jullit boobee te moom mu di ko naqari ñeenteel ba mooy tuyaaba da koy raw ndax li wax ne alxasadu yaakulul xasanaat kama taakulun naarul xatab kañaan day yàq ay mbaax mbaax ni nga xam ne moom la sawara di lakke matt rek noonu la kañaan di lakke yu baax ya kooka doon def bi ci mujj mooy ku añaan yàlla du ko may tawfiq day tëj buntu tawfiqam du taseeg tawfiq mukk wa qaala abdullahi al antakiyu dawaul xol fii xamsatin nekk na ci juróom mujaalasati saalixiina toogaaleeg way baax ña wa qiraatil quraani ak jàng al quraan wa ixmaasil batni ak xiifal biir ba wa qiyaamil leyli ak taxaw guddi maanaam mooy julli guddi wa tadarruxi ak toroxlu waqta saxari ci waxtu njël xabdullahi al antakiyu ku yëg ci xolam lu mat a faj ni ki xol bu wow ko nuru na ko faje ci juróom yii ba ci jëkk mooy di toogaaleeg gaa yu baax yi ñaareel ba mooy di taqoo jàng alquran te di ko seetantal ñetteel bi mooy xiif xiif bu yem boo xam ne dana sawar te du àgg ci wéra di mbaa muy tëlbati ñeenteel bi mooy di julli bu guddee ngir yàlla bi ci mujj nag mooy ci waxtu njël muy ñaan ak toroxlu dellu ci boroomam ndax yàlla saafaraal ko xolam defal ko paju aajo waqiila waxees na ne fii dikrillaahi nekk na ci tudd yàlla xam su xisaalin juróomi jikko ridallaahi moo di ngërëmul yàlla taxalaaka wat taxafudu akuk wattandiku mina seytaane ci seytaane wariqatul xal bi ak sewu xol maanaam yërmaanday xol wal xirsu ak xir xala taaxaati ci xeeti topp yàlla yi wal manhu akuk fekk minal maxaas yi ci xeeti moy yi mu ne nee nañu tudd yàlla day mat naa baril ndax juróom yépp des na ko ci am ba ci jëkk mooy bari tudd yàlla day tax yàlla gërëm la ñaareel bi mooy day tax mucc ci seytaane ndax jaam bi kem na mu sàggane ci tudd yàlla rek noonu la ko seytaane yi jekkoo kon nag su bari lee tudd yàlla day mucc ci seytaane ñetteel bi mooy xolam day bari yërmaande kuy bari la tudd yàlla xolom day woyof bari yërmande ñeenteel ba bari la tudd yàlla day tax nga xiir ci xeeti topp yàlla yi ndax xol bi day woyof cëri woyof sawar ci lu baax ba ko juróomeel mooy sori xeeti moy yi na nga xamee ni moom lay barilee topp yàlla yi noonu la ko yàlla musale ci xeeti mooy yi mu daal sori xeetu mooy wa qaala alfudayl bnu xiyaad radiallahu anhu xamsun juróom min xalaamaati saadati mi ngi bokk ci màndargay texe al yaqinu wóolu fil qalbi ci xol wala waraxu akuk sàmm fi diine ci diine wa zuhud akuk dëddu fi duniyaa ci àdduna wal xayaaw ak kersa fil aynayni ci ñaari bët ña wal xasiyut aku ragal fil badani ci yaram wa al nee na woon juróom yi day màndargay ku nar a texe la koo ko gis ci moom day jàppal ne yàlla nar na ci moom texe teeg ëllëg ba jëkk mooy mu am yaqiin xolam wóolu boroomam xolam dal bu baax ci diine boromam ji bañ a am sikki sàkk bañ am jeexi jaaxa ñaareel ba mu amul sàmm ci diineem maanaam lu lënt sax da moytu rawante na lu ko wóor ne araamal nañ ko mbaa sib nañ ko ñetteel bi mooy dëddu àdduna mooy du bëgg àdduna ngir àddunay kese su ko bëggee it da koy bëgg ngir defare ko alaaxira ñeenteel ba bari ba bari kersa ga feeñ ca bët ya juróomeel ba nag ragal yàlla wekk ko màggal ko ba loola feeñ ci yaramam wa xamsun juróom min xalaamaati shaqaawati mi ngi bokk ci màndargay texee di aha dana yàlla na nu musal allahu yàlla min ci ñoom alxaswatu moo di ak wow fil qalbi ca xol ba wal jumuudu akuk nay maanaam ak néew ay rongoñ daal fil xay na ni ci ñaari bët ña waxilatul xayaay ak néewu kersa war raxabatu aku xemem fi duniyaa ci àdduna wa tuulul amali ak guddi mébét alfudal nee na juróom yi nag moom màndargay ak ñàkk texe la ñu koy wax texe di mu ñaan yàlla musal nu ci ba ci jëkk nee na mooy xol bu wow xol bu wow ba nga xamee ne buñ ko waaree du waaru bu gisee loo xam ne war na ca am yërmande day woo koŋ rek du ci am jenn yërmande loolu màndargam texee di la ñaareel bu bët yoo xam ne jooy ngir ragal yàlla da ko jafe lool lool nga xam daanaka daal ay bëtam moom dara mënu koo jooyloo ci lu aju ci wàllu yàlla loolu màndargam texee di la ñetteel bi mooy ñàkk kersa ñàkk kersa moom màndargam texee di la ñeenteel bi mooy bëgg àddina ngir àddunay kese bëgg àddina ngir àddunay kese nga xam ne du ngir àllaaxira bëgg àddina ngir àddunay kese du ngir defaree ko àllaaxira loolu màndargam xee di la bi ci mujj nag mooy gudd ay mébét gudd ay mébét mooy jàpp ak dundam des na lu baree bari di wéy te it lu mu amagul lu ne ci wér ak jàmm ak alal mu ngi ñëw loolu bu ko xasee def day néew ay topp yàlla te bari ay bàkkaar mébét sax maanaam yaakaar ne yàlla mën na la fee bàyyiwaat ab diir te da fi mën a def lu baax loolu moom baax na ndax bu fekkee da ngaa jàpp ne léegi nga fiy jóge te it doo fi am dara looy jariñoo day mel ne kon da ngaa naagu yërmaande te kon doo sawarati ba tey ci lu baax li ñu bañ koy mooy mbébét yi gudd a gudd rek moom moo yàqal nit waaye jëmmi rafet njort ci yàlla jàpp ne sag dund desandi na loo mën a jëriñoo rek sàkku ci ngërëm loolu moom baax na wa qaala suhayl ibnu abdillah xamsatun juróom bin jawaahiri nafsi mi ngi bokk ci wurusi bakkan faqirun aji ñàkk yuzhiru kooku dana feeñal alxinaa am koom way jaayihun ak aji xiif yuzhiru kooku dana feeñal ashibaha ab reggaay wa mahzun ak ku ñu jàqal yudhiru ko dana feeñal alfaraxa mbékk wa rajulin ak waay baynahoo kok nekk na diggante moom wa bayna rajulin ak diggante beneen waay xadaawatun ak noonoo wa yudhiru tamuy feeñal la xoo ñeel ko almahabata cofeel wa rajulun ak waay saa'imun kuy aji woor yasoomu ko dana woor annahaara bëccëg bi wa yaquumu tamuy taxaw allayla guddi ga laa yuzhiru te du ko taxa a feeñal boo fan genn doyadi Suhaylu nee na woon juróom ñi kenn ku ci nekk bakkan bu tedd tedd bu sell sell la amee ku njëkk ki mooy ku yàlla teg ak ñàkk te du ko feeñal boo ko gisee defe ne ñàkkut ñaareel mooy ku xiif te boo ko gisee defe ne dafa regg xiifut ñetteel bi mooy ku yàlla teg njàqare waaye boo ko gisee day feeñal mbégte bu mel ne yàlla tegu ko njàqare juróomeel bi mooy ku yàlla nattoo ak noonoo digganteem ak keneen waaye du feeñal ne ak noonoo dox na sama digganteeg moom day feeñal rek cofeel digganteem ak moom bañ ko won ne ko yëg naa ne danga maa noonu mbaa nang dox na diggante kenn du xam ne daal digganteem ak kooka ak noonoo dox na fa bi koo xam ne bu bëccëgee day woor bu guddee day fanaanee julli waaye kenn du ko gis ba xam ko ci moom waxan abi hurayrata radiallahu anhu qaala daxaltu tàbbi woon naa ala rasulillahi ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam faxultu ma ne ko aw si nii dénk ma wa aw gis te nga gàttal fa qaala mu ne ma yaa aba hurayrata uusika dinaa la dénk bi sitti kalimaat juróom-benni baat fii na yu nekk na ci ñoom surtout mi ati juróom-benni téeméeri njëriñ mooy idastaxala dem soxla woon annaasu nit ñi bil fadaili ci ngëneel yi fastaxil na nga soxla woo anta yow bil ci farata yi wa idastaxala